jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte kon nuñ koy defee saa su ne mbokk yi bu ngeen gëj gisee gëj gise bi nga xam ne du dara lu dul jàmm akub salaam yéene leen jàmm di leen baalu àq ci koor gi ñu jóge di leen baalu àq di ñaan suñu borom mi nga xamante ni moo am jéggal yàlla na suñu borom boole jéggal mbas mi nga xamante ni dal na ci àdduna wërngal képp ñu ngi ñaan yàlla suñu borom saafaraal ñu ko eh, jëlee ko fi. Euh, ba ñu delluwaat ci suñuy activité ndax réew mi namm nañ ko rawatina yéen ñi nga xamante ni yéenay safoo làmb saa su ne waaye tey nag comme rassemblement bi dañ koy bañ ba waral ñu tëj salle de musculation yeeg bépp jumtuwaay yoo xamante ni mbër yi dañ fay entrene tey moo waral ma dem seet si kenn koo xamante ni dafa jóge Sénégal ñëw Gambie mais bi mu ñëwee dafa tombeek jàngoro bii di coronavirus am ci réew mi ba waral mu ñëw di entraîner mais dama koy bett xool ci salle bi nan lay entraîner nan lay dundee ak jàngoro bi nu mu ko dindee bi mu jógee Gàmbeeg léegi kaay kooku mooy doomu nday soq doomu nday bébé doomu nday Garga Mbossé <laughs> doomu nday Gora Sock Cheikh Cambérène salaamaaleykum siyaar naa leen <laughs> doom nday maa lay siyaar bër <laughs> waa lay ziar gerte gi. mais champion naka mu gaañ. waaye sant yàlla bu baax a baax. waaw mais da nga ma bett de. sa waay nga. en naa ni ba pare ba waaj ñibbi sax. Ah. waaw. Ah, bi wax rek. ñoo ngi bett la rek. gis nga depuis quatre ba léegi maa ngi fi. dëkk bi waaye xanaa sant yàlla rek. ak julli ci Mohamed sant sang-sang yi gërëm suñuy ñeenti waajur. <laughs> kooku mooy Calcio bu Sénégal bi Calcio nag dama bëgg ñëw ñu toog waxtaan parce que bi nga jógee Gambie léegi yàgg na. Mhm. ñëw ci Sénégal. Mhm. Euh, tombeeg am jàngoro boo xamante ne xew na fi. Mhm. say activité te am na sport boo xamante ni déggoon nañ ne yaa ngi ci mooy MMA loolu yëpp dinañ ci waxtaan léegi.

bisimilah sarbone sar sarbone e dam baw yoo jam corona ginnaaw yàlla bi ma euh, nuyu àdduna bi yëpp maa ngi gërëm samay ñaari waajur di sant euh, képp koo xam si daal mi may bégee muy nekk ci ak fu mu mënta ci àdduna muy ak ak nit mën a nekk ci àdduna di may bégee maa ngi lay tàllal loxo di sàkku ci yow ñaan ak di lay ñaanal. ak di ñaan yàlla corona bi nga xam ne moom moo lëmbee réew mi yàlla na fi gaaw jóge Kalso nga jógee Gambie ñëw Sénégal euh, lu waraloon dem Gambie parce que ku xam Kalso xam ni euh, champion la bëri nga làmb fi malgré bëri nga fi ay combat ñu jékki-jékki gisatuñ la nga dem Gambie euh, lan moo waraloon sabab bi nga jógee Sénégal dem Gambie ak ba nga demee Gambie lan nga fa doon waaw Djily Fall loolu boo ma ci laajee dinaa ci sawar a tontu. Gambie la ma fa yóbbu nekkul dara lu dul di dem entraînement ak parfois sama soxna sama soxna comme moom Angleterre la ne. Mm-hmm. bu fa bi comme sama soxna moom comme moom Angleterre la ne. te bu jugee Angleterre foofu lay foofu laay dayante moom. Mm-hmm. lu ci bëri nag loolu moom ëpp li ma fay yóbbu mais en même temps nag mu fa demee dama fay entraîné waale. Mm-hmm. ba lu ci bëri maa ngi maa ngi. nuyu samay xarit ñoom soq nga xam ñoom bu ñëwee man maa fay bokk nekk ñoom foofu ca Gambie euh, ñu jékki-jékki gis nga nga dem Kalso ñu ñi la bëgg a xam ci làmb ñaata combat nga ma bëgg xam ci bëgg xam ci làmb xamal làmb yow sama lu bare yow fi la la fekk. Mm-hmm. lu bare yow fi la fekk parce que sama tur. Mm-hmm. sama tur. avant may dugg ci làmb euh, mbapat laa suwee hmm. am na loo xam te fekk nga ko hmm. sama tur dafa ma dafa ci arène dëgg la làmb maa ngi ci am neuf combat hmm. deux défaites laa ci nga ci am kan ak daan nag moo bëggee di am na ñoo xam si jàpp naa leen am na ñoo xam si tamit jàpp ma leen waaw mais defet mu mujjee am moom oh, dama bëri quatre combats. ci euh, quatrième combat ci la amee defet ki ma daanoon mi ngi nekk euh, fële écurie Songane Gueye bu nekk Tëngéej bi euh, keneen ki ma daanoon tamit mi ngi nekk écurie Rebeuss ci ñoom ñoom kii ñoom double moteur mais Kalso nga jékki-jékki dem Gambie diiran bi nga jógee Gambie ñëw Sénégal am na jàngoro boo xamante ne xewoon na ci réew mi wala boog wër na àdduna wërngal képp muy coronavirus mu doon balaa boo xamante ne àdduna bi yëpp fi mu toll nii lëmb na leen nga jógee Gambie ñëw fii da pare woon pour dellu wala feebar bee la tënk ba mënoo delluwaat. waaw loolu moom ba ma ci laaj dinaa ci sawar tontu. Hmm. ñëw fi nii bi may ñëw fii. Hmm. boobu coronavirus bi amagul. waa boobu de soo ko am rek. parce que man mois de mars laa fi ñëw. maa ngi fi ñëw jour bi jour bi Tilala Fall génne àdduna sëñ Abdourahmane Fall Tilala. jour bi génne àdduna jour boobu ci laa ñëw ci laa jógee Gambie ñëw fii. ci loolu man maa ngi koy jaale ay famille am. di jël njaal gi di koy teg ci ki nga xam ne moom moo nekk xalifaam. xam ne moo nekk xalifaam ñu koy wax. micro bi ki nga xam ne moom moo nekk xalifaam ñu koy wax euh, sëñ Abdou Aziz Tilala. bu ma jugaatee nuyoo boobu maa ngi koy jël mu teg ko ci loxo ki nga xam ne mooy rakam di sëñ Fallou Fall Tilala la kenn mënul wax dara fii ci Sénégal te doo leen ci boole. mais euh, ba ma ñëwee dama naroon delluwaat Gambie léegi ma demee ba nar delluwaat Gambie nag far ci diggante bi ci la affaire corona bi nga wax ni ci la amee. loolu moom mënu mënumaa dem. naa la ci combat ki nga xamante ne mooy Bébé Diène. nga ko open press soq macha allah tamit nga ñëw fa wane waat leneen wane nit ñi sa diggante sa relation yow ak Bébé ak soq te yow nga dëkk parcelle ci dëkk euh, Médina ci dëkk Pikine seen relation yéen ñaar lal la yaa ñoom. soq nag euh, Bébé Diène bu moo ko xamee. Bébé Diène bu ma ko xamee yàlla yàlla ak soq moo tax ma xam ko. kon hmm. soq mooy sama xarit. Hmm. soq. moom mooy sama xarit. maa ngi koy nuyu sànq eh, mu jël nuyoo bi jox ko soxnaam ñu koy dikkee mu nekk soxna su baax a baax a baax dikke Diouf. nit ku baax. nit ku baax. Euh, relation boobu nga xam noonu loolu bëri ñoo xam ne fi mu toll nii ñu bëri sax ñu ngi ciy wax. parce que li nga ma laaj ni dinaa ci sawar sax tontu bu baax baax parce que ñu bëri ñu ngi may wax loolu ni ma. Mhm. lan moom moo war man man ma dëkk parcelle ba pare dem di ànd ak mbëru Pikine. Mhm. ba am ñoo xam si sax ñuy commencé du ma ci jéem wax lu ne maa ngi dégg lu ne am ñoo xam ne ñu am am am ñoo xam si ñu ngi ma ci daw sax. am ci ñoo xam ne ñu ngi ma ci daw. te loolu amul dara lu ko fi jar waaw parce que xam nga xarit kenn du ko wutal kenn. xarit amul kenn ku koy wutal kenn. ñi lay daw ci lan moo tax ñu lay daw sa relation soq moo tax ñu lay daw wala moo tax ñu lay daw. sama relation ak soq man loolu loolu loolu sama relation soq loolu yàgg na soq maa moom bi ñu xamante bi muy bëree ak euh, ndigal ndigal bu Balla boobu la xamante ci Gambie waaw soq Gambie la xamante dëgg la nag bi mu nekkee fii nii Dakar mosuñu woon dégg naa turam xaw ma ko dégg naa turam xaw ma ko mais magam bu jigéen moom xam naa ko magam bu jigéen parce que jamono jooju ba ma daan ànd ak mbës magam bu jigéen dafa daan wax euh, mu ni mu ma daan wax mu ni ma waxal sa xarit bi mbës bu mu bëreeg samay rakk parce que moo samay rakk dañoo nuroo mais far li yàlla di def nag moom Gambie lañ xamante bi muy bëri ak ndigal bu ñëwee ñu daje gi muy dem entraînement man tamit may dem entraînement mm-hmm. ba benn jour ñu dem noonu ci géej gi léegi xam nga policier Gambie boo dem géej gi dañ koy dafa am sécurité quoi mm-hmm. léegi gars yi bëgg ko téye mën leen kii sama xarit la dafa jógee Sénégal dafa ñëw fi day préparé pour combat kii affaire wu ñàkk fayda indiwu ko fi mm-hmm. foofu lañ xamante moom ba léegi mu nekk nit ku baax nit ku baax moom soq. combat bi mu waroon a bëri moo gàmmu gay man maa ko naroon a yóbbu esaat mais far yàlla defar combat bi amul. mais tey noonu nga nan mën a dëkkee parcelle. Euh, xarit li wax nga ko sànq sa biir wax xarit kenn du ko tànnal kenn mais ku la xam xam ne dafa am relation boo amoon ak yenn mbëru parcelles yi euh, nan nga mën a dëkkee parcelle après ngay dem li amaa relation ñooñu. di ñëwaat fii est-ce que seen dëkkin yaa mbëru parcelles yi nga dëkkal du xaw a xajam wala ñu lay xoolee beneen bët. moom mbëru parcelles yi mënu ma ci am ak problème ak kenn mbëru parcelle mënu ma ci am ak problème kenn parce que fii amul kenn benn mbëru parcelle moo fi ëppalee dara. yaa ngi déglu ma suke mun ñu mu fee munu taw ma ci kenn tamit xaar ma yàlla. xam nga garga sama xarit la yow xam nga ci dara. fii par ci fi ñu dëkk nii. Mm. écrit garga ña nekk ñëpp amul kenn ko xam te am naa ci moom xaar ma yàlla. ba ñu nekk ci écurie bi yàgg na. xëy na dañoo jóge ci écurie bi ñu demoon def suñ écurie bopp tuddee ko fekk ma ci boole. Mm. gannaaw loolu man maa ngi ci maa ngi nuyu Cartouche xam nga Cartouche bu baax sa doom day la ca France. waaw Cartouche. <laughs> ma fa jógee Fatick maa ngi nuyu tamit jëf jël mi nga xam ne moom la ko bokkoon ñu dem tijji écurie boobu. jëf jël ca États-Unis ngi ko nuyu. waaw waaw jëf jël. Mm, mm. en même temps maa ngi nuyu waale Max Max Coach xam nga ko Max fi mu toll ma nga ca France. ma nga ca Cartouche. yaa ngi dégg bañ tijjee année boobu noonu suñu écurie bi bañ ko tijjee farial yàlla def ca lañ def ñu tijji ko ay xéwal dafay am ñun ñëpp am ndam Cartouche am ndam jëf jël am ndam man manti ma ñëw am ndam benn mbëru parcelle boo xam si bu ma mën a jëlee fii nii amul aw ma ak xaar yàlla ak benn mbëru parcelle gis nga garga buy bëree daaw garga ba muy bëree ak Moussa dama jógee ba Gambie ñëw ñëw boo ko nekk stade yow kon amu kenn problème mais nag amul kenn koy wutal kenn lu ne ñu ngi koy wax mais amul kenn koo xam si ku ma mën a wax ni ma bàyyil ki wala bàyyil kii yow kenn du la tànnal sa xarit. dëgg la am na solo parce que xarit moom kenn du ko tànnal kenn. mais dama bëgg ñu dellu si waat tuuti ci ci ci ci diggante ki nga xamante ne mooy Calcio. ndax Calcio fi mu toll nii am na ñoo xam ne dañuy lëmbe làmb ji. am na ñoo xamante ni ci categori boobu nga bokk mais yow dama xamul ban catégorie nga boole sa bopp parce que tey fi mu toll nii. mën nañ ni mbas mi moo tax kenn talatul wax waxi làmb. ndax actualité réew mi yëpp ak jafe-jafe yéeg yi nga xamante ne mooy xat-xat yi yëpp mooy coronavirus bi nga xamante ni toog na suñu diggu bopp mais yow ci biir làmb nan nga gisee ni lan moo ko war a gën a mën a defal parce que ñu bari ñu ngi coow ci diggante président CNG Alioune na dem na def lii na def lee mais suñu jugee ci loolu da wax yow ci ban catégorie nga boole sa bopp CNG bi waaw loolu nag boo ma ci laajee dinaa ci sawar a tontu Alioune Sarr wax dëgg yàlla dafay yàgg 1994 ba léegi. moom ak Yaya Jammeh ñoo nekkandoo woon ci pouvoir Yaya Jammeh Yaya Jammeh dem na bàyyi ko fi. Yaya Jammeh dem na bàyyi ko kon affaire bi li doon yoon moom mooy moom mi tey jii dafa waroon a dem. li doon yoon mooy tey jii mu dafa waroon a dem abal nit ñi. moom moo gën mu dem ci jàmm moom moo gën muy dem ci noo xam te neexul kenn. parce que gis nga fan yële paase mbër yu mag yëpp ñu ngi koy wax. mbëri mag yëpp ñu ngi wax ni pour sa waay na leen may quoi waaw. parce dafa war a may dafa war a mayaate nag wax dëgg yàlla xam nga 94 ba léegi 94 bu fekkee yow mii juddu nga ndegam juddu nga yow xale nga léegi 94 ba léegi nag jii loolu dafa nekk loo xam si lu yàgg la dafa war a maye loolu moom mooy yoon man moom d'accord naa ci nga xam ne mooy mbër yi nga xam ne dañoo wax ni moom pour moom na maye man d'accord naa ci ñooñu. waaw moom dafa war a may nga ne appam jot na war naa mën a dem may ñeneen ñu ñëw. waaw appam jot na war naa mën a dem may ñeneen ñu ñëw. yow sa sa place ci làmb fan la ñan nga gis ni yaa ngi ñoom ay nattaangoo ngeen parce que am na mbër moo fi doon laaj mu woo ma ne ma Kalso yebu sax yow yaa ma yeb yow muy toog di ma tudd. Hmm. te nangoo ñëwatuma ko sax tudd ci presse. ndax eh, yaa ko kii te kooku sama xarit la sama doom ndey la ñu fi jàpp ñëpp boo gisee bi mu demee Gàmbi gis ne na nga fa def liiru jaan jàpp ko dóor ko ba keroog macha allah retour bi fii Sénégal nangul xaar sama xarit la sama doomu ndey la mais nee na ma moom. yow yaa ma yëpp waaye Calcio yebu ma yow fan nga jëm fan nga jëm ci laa. moom moom moom moo la wax loolu. ki la wax loolu dama bëgg yow nga jaar ci turam ngan ma kii moom moo la wax lii. mais yow yaa ma topp naan ma jox ma kooku jox ma kooku xam nga turam ban xaw ma turam. yow yaa topp di ko la bu ñu waroon a bëri maa moom bëri woon nañ bu yàgg a yàgg. Hmm. xam nga le 8 mars bi rek maa moom naroon nañ cee bëri. bi nii. kan moo ko naroon tëgg. Euh, jamaïcain. Hmm. ma ko moom mooy dafa fekk sama licence man amu woon licence bi may dem Gambie defaruma sama licence quoi. Hmm. loolu moom ma tere ma bëri moom. mais xam bu lay wax ni la ay wax amul tur kañ nga jaarati tuuri bu la neex ragal yow non du ma ragal sax mais bu la neexee yow nga jaar xam yow bu ko jaar non non yow bu ko jaar ci turam déedéet ba xam nga ba tey. waaw xam-xam ma dem ba ma dem ba gën laa xam boppam yow yaa ma gën a xam position bi nga taxaw ci làmb. yow yow dama man yow kañ nga doon ragal. waaw dama lay laaj nga doon ragal kay yow xam man duma ragal. Eh, xaw ma yow xam man duma ragal ba pare boole kaay yoo xam man nagu raam laa. Ah, nagu raam laa man dama feebar. Ah, ah. man nag yi ñoomee daw mais man daw bi nga xam ne corona bi gars daw nii. yow wóor na la man corona bi daw ma ko. corona bi daw. bi parce barke Alaaji Fall Mbacké daw ma corona bi kon xam nga ne man du ma ragal kooku da jaar ci turam ma tontu ko. non man du ma jaar ci turam déedéet man boobu du ma jaar ci turam. ah fekk jaar ci turam nag non non. Ah? <laughs> <laughs> kay sëñ Bas mi ngi soog ah war wax turam de ah. waaw kooku moom du combat. du moom xam na moom bu baax a baax a baax moom xam na moom bu baax nee naa la Gambie ba mu fay am jafe-jafe ba mu fay dem di bëri di am jafe-jafe. moom xam moom boo ko laajee sama du ma wax na la mu la xam na kan moom xam na kan xam na bu baax kan moom mooy Garga 2. mais mais mais daf ne man ma ku mu daan man xaw ma koo mu ne ma kooku comme yow waxoo ku mu daan te man du ma nekk fii di bëri benn bojo bojo moom bojo bojo la la jàppe waaw ah, léegi moom dama ne li ngay wax noonu moom moo nekk loo xam moom moom li ngay wax moom moo nekk wax joo xam si lu amul njëriñ. ay moom mu wax ma kan la daan ak kan la daan. micro bi mu wax ma kan la. ah tiit de li ma lay wax nii da tiit ah. téléphone bi ngay bàyyi. téléphone bi ngay bàyyi. damaa bëgg. waaw <laughs> que loolu yëpp di la leer mais dama bëgg seen diggante yee jaar nga wax ko parce que yow xam nga ni wulli champion la. Hmm. wulli xeexkat la. Hmm. ku fi jàpp duma na la. te wulli li mu def ci làmb defoo ko ci làmb. wuli nee na wax wax nga wax ñaata mbër nga daan yow munoo wax sax ñaari mbër ay boja boja nga fi tudd ay ñoo xamante ne ay nag bu ràmm lañ ñi ñoo xamante ne boo leen laalee ñu daanu ñoo xam ne boo leen ëffee sax ñu daanu te moom day dóore gis nga liiru jaan ni mu daj maa ngi koy nuyu borom états-unis bi dañ koo dóor ba mu daw jënd géew moom moom avant avant avant liiru jaan kan la mu mujj daan moom. waaw ah. ah xaw ma ko de. avant liir yaa ma ko la mujj daan. xaw ma ko de. barki bu jëlee sama combat billaay walaay du ko doon nee naa le mars bi combat bi naroon na taxaw ñàkk am euh, nu sama licence bi génnul. Hmm. moom moo tax bëreewu ma moom. mais moom moom nee na. yow man déglu ma non moom nee na ma promoteur ñemewu ko woo mu ñëw nga naan ko ay avance calcio nee na promoteur yëpp. ko man ba ma jamankee ko jamankee avance yow xam bañ naa ko bi yow man ko soxla ma ci dara man bu dee xaalis yor naa xaalis bu dee xaalis yor naa xaalis boo xam si lu ma mën a préparer sama combat. Hmm. yow woo naa la wala woo ma la. woo nga ma ah woo ma man la demal ca jamankee nga d'accord moom lu mu la fay baax na. Hmm. man la yow xaalis bi man euh, naa ci am ginaar rek man la ma la wax dafa leer dama man jëndal ma ci ginaar yu ma lekk li ci des yow nga jël ko def sa poche <laughs> wax naa la ko wala waxuma la ko ci ci télé ngay wax de. waaw wax naa la wala waxuma la ko. wax nga ma ko bali la. waaw man du ma mélangeur. waaw. du ma supporter du ma dara. waaw man reporter laa boo xamante ne damaa nekk ci làmb man doo ma dugal ci dara. waaw léegi sa digganteeg wulli yéen ñaar la yéen ñaar yéen ay bëre te wulli sama xarit la sama doom day la yow sama xarit nga sama doom day mais yéen ci digg géem ku ci nekk luy may sa borom ndam yaa koy def mais Calcio euh, Jamaïcain li ma wax leer na Jamaïcain bëgg na combat bi mais wulli dafa mel ni daf laa xeeb. parce que nee na moom sa tànk yi dara newu ci bu la jàppee mun na laa dóor nga daanu expliqué na daal ay détails te yow dafa mel ni da ngaa jugewaat ci wulli dal ci ñeneen yow dafa mel ni ñi ngay wër daal. ñoo man gën a wex de. yàlla xam ne moom sa tax maa jóg man nee naa leen ñi fi gars yi di bàyyi ko ku ci am jël Malick Niang mii nga xam dafa toog ñeent at bëriwul. kàlla Malick Niang Malick Niang moom du sa morom waxal fee. que moom mi ngi laaj ñoo xam si du ñu mor moromam di lamb da ngay am am nga droit laaj ku la neex lamb am nga droit laaj la neex Reug Reug la toog laaj bombardier waaw man ma neex tamit bu ma télé bu ma jàkkaarloo télé ma ne nañ ma jox Malick Niang nga Malick Niang naa bëri Malick Niang Forza Abdou ñooñu ñëpp xam Abdou Diouf na combat am na combat Abdou Diouf day nañ boo am loon combat maa moom combat du ko dàq man li ma la wax dafa leer dama la man nag nagu raam laa daw ma benn nag nag yee may daw ba xam nga nagu raam mooy lan gaa yooyu nga ma yëpp man saafara mbooloo laa leen teg est-ce que xam saafara mbooloo. déedéet xaw saafara boo xam ci ëtt bi lañ ko teg ku ñëw raay dem. yow da yaakaar ku ñëw raay dem <laughs> nag kaay ma wax yaa ngi tooñ Malick Niang parce que Malick Niang champion la. Ama Baldé moo ko mujjee daan. Ah. ngay tudd ay Forza. te yow fii laaj naa la ne la am na promoteur bu bëgg combat Adama Diouf nga yuuxu ne nañ ma ko jox. te yow xam nga ni Adama Diouf. yow na fi mu toll yow da a yow da may gën a dugal ci problème Adama Diouf yow xanaa da nga bëgg yow ñu yóbbu ma conk vraiment boo may jox dee ma jox combat na yow tamit Adama Diouf Adama Diouf Adama Diouf nga a jox Adama Diouf da door nga gaañu billaay wallaay Adama Diouf moom sama combat moom maa moom bu taxul nu ma sa entraîné duma banaana laay léegi chaque jour kilo banaana du ma dem sax saal waaw Adama juuf moom macha allah mbëru sant la barki Alaaji Fall Mbacke du ma dem sax saal combat bu taxawoon maak moom saa sax du ma ci dem. as mu jëm nga ma ñëwee jël yow xam man bu dee dëgg yow man ñaata mois man maa ngi koy def boxe yow nga gis vidéo yëpp ma la ko doon envoyé en même la doon wax noonu la waxee lim la wax noonu wax loolu am. yow envoyé mu lay vidéo yoo xam ne ma jël deux cent cinquante kilos soox yow man lépp lu ma mës a def dama koy envoyé vidéo moom muy teg pour xam nga Papa Ama Baldé ay temps ba mu daan bëree. bu daanee mbër xam nga danaan nañ ko foto parce que nee na wolof dañoo mën a fàtte. Hmm, micro bi. waaw ah, loolu moo tax bu daanee mbër danaan nañ ko foto. Hmm. man tamit lépp lu ma mosaan def ci salle dama la ko daan envoyé. ñooñu ñoo xam noonu ñëpp bëriwuma ak wuli bëriwuma ak aadama Diouf.